lima ma ci ajouté moom mooy euh, damay rejoindre mon mon ami et frère euh, Malal Talla ñu gën ko am ci Pou Malal tey Youssou Ndour man dama ko jël comme référence africaine nit la koo xam ni il représente le wane ci àdduna tey ñun ñu ne nouvelle génération bu bees bi nga xam ni ñoo commencé di jël relève il pouvait dire que moom. il naa plus rien à xam nga prouver mais daf ni damay jël samay jeunes frères invité leen wayloo leen si benn plateau boo xam ne dina ressembler au minimum seize mille personnes ñu jouer devant presque tous les télés du monde donc am na tamit ay artiste wala ay musicien wala ay lutteurs yoo xam ne peut-être dañ doon rêver ñu jàkkaarlu people bu toll noonu ñu indi leen en même temps mu leen di présenté waale le monde entier parce que tey képp sa xel nekk ci bés yi nga koy seetaan ngay xool Youssou Ndour su benn maam góor yéegee di nga wax kii kan la kii kan la boobu ça veut dire que ni Youssou Ndour mu lay am fu mu lay fu mu lay yóbbu Youssou Ndour mën na dem bala xam ni Bercy bi day toog croiser les bras ni ren damay def Bercy boo xam ni c'est mes jeunes frères qui le font j'appelle Titi j'appelle Mame Gour j'appelle Pape Diouf ñu jouer en live ñi def reggae comme Carlou D ñi def rap comme Fou Malade ñi def mbalax ñi def benn affaire boo xam ni mix lay doon parce que gis naa ni tey affaire bi dem na ba nga xam ne nekkatul affaire Sénégal yëpp j'ai des amis congolais qui sont là ah des maliens maintenant dans tous les points de Paris foo tourné gars ci loolu lañ nekk di discuter y a des gens pour am billet donc ça veut dire que ni Youssou Ndour bu wàccee parce que sax am na yeneen woykat yoo xam ne tey xamuñu mais man dama ñëw Bercy 2010 mooy suma premier Bercy ma ñëw bii mooy suma deuxième Bercy ah. mais bi may ñëw ànd ak moom ma xool cër bi ko tubaab yi jox te africains yi dañuy wax la plupart tubaab yi respecté wu ñu jox ñu ñu cër mais Youssou Ndour bi ma ñëwee ànd ak moom ñu def bersi ba pare Bercy bi jeex mu ñëw suma chambre toog honneur boobu rek dafa rëy ñu pare toog discuter xëy na lendemain ànd ma gis ni ko tubaab yi toppe ak liñ ko kuyee ça veut ni yóbbu na affaire bi bu sore sore sore sore donc nag mënuñu lu dul ñaanal ko yàlla mu may ko wér yéene bi mu am ci Afrique parce que yàgg na woy unité africaine yàlla may ko ko et am na ay ambition ci Sénégal mooy tey Youssou tax na woykat mën a rêver lu nekk ci àddina bi waxuma woykat sénégalais wala congolais wala africain wala loolu mais woykat bépp buy exister même lu Michael Jackson amul pour les États-Unis Johnny Hallyday amu ko pour la France lui il l'a eu parce que au moins woowee nañ ko euh, son excellence monsieur le ministre donc nag tey Youssou Ndour tax na woykat mën a nekk lu nekk te bu njëkk ba bu sa doom daan def musique danga koy tere ñoom musique c'est pour les voyous bu leen naan kat affaire yooyu mais tey Youssou Ndour tax na tey nit ku jàng ba yor ay këyitam ñëw Youssou Ndour ne la ñaata laa lay fay bu dee mu euh, euh, nag man je profite de l'occasion pour remercier ko ñaanal ko staffam tamit xam nga voilà voilà xam nga affaire yi jëm ci kanam quoi man daal fi mu toll nii su ma waxee dinaa wax ba kañ a génn suma génn voilà Youssou daal ndaanaan la